jàngat. non jangat bi euh, lu dal xel parce que orientation rek lañuy mëna japp ci 100 jours yi. Mm-hmm. orientation bi moy euh euh li ci mujj sax moy mm. Cheikh Tidiane Dièye euh, ministre de l'hydraulique mm. vraiment je lui tire mon chapeau parce que dama ko suivre barki dem ci 2S. Mm. mu woné orientation bo xamni dafa dafa ak touti ñi fi jitu liñu gissé niñu gissé won euh woon mbirum hydraulique ak saafara ñu am ci problème mu ndox parce que nous avons un projet qui a 459 milliards de pour pour dessalement d'eau de mer mhm. donc annulé donc te y ñu ngi une solution yoo xam ni day sóoraale euh, augmentation population bi ak augmentation demande bi y ak des décennies et non nous pour régler problème bu jàmp donc c'est déjà changement gis-gis la ak orientation mhm. mais également euh, le fait que nous avons fait ay bor ci étudiants yi ci agriculteurs yi wañi engrais wañi dund bi euh, jiw yi nga fexé ñepp jot ci gis nañu gouvernance bu bees bo xamné tabaski bi bi ñuy chantage client yi gis nga ni Dakar dem dik déployé wo mhm. comme si ñun mosuñu am un réseau de bus au service du public ba màggalu touba bi sax ñu ngi sollicité que dem dik ci de la même façon donc amna lu bari lo xamné ne mu ngi changé donc 100 jours gouvernance même bu dul li wax ni yépp sax jamm ji am Sénégal rek kooku bilan immatériel la amul prix parce que nit ñi dañ doon mer waaw dañ doon stressé di ñuy japp di ñu tëj di ñu rey di ñu traqué ñii di exilé wu ñii mënuñu dugg ci dëkk bi lool loolu kese kese mm-hmm. euh euh euh, euh jar changement. Mhm. rawatina nag ñu woo ñëpp comme diñu ubé ci assise de la justice pour càmbar ko te président néna na. Mhm. danañ am yenen point yo xamné ne. Mhm. danañ ko pencoo pour ut ci ay saafara. Mm, kon démarche bobu démarche inclusive la. Mm. comme démarche inclusive bi euh, euh, ministre Cheikh Tidiane jël tamit parce que dafa wo ay retraités ay techniciens hydrauliciens yu retraités mm. sàkku sen xam-xam pour mën jël ay dogal donc non le président de la république aussi bolé ñëpp ci ben réflexion pour ñu pour ñu pencoo réew mi ñu ut ay saafara ci problème yu am ci réew mi donc 100 jours yi euh, lolu lay woné parce que ñun suñu problème euh, moy naka lañuy ñuy suñu économie lolu je crois que débat d'orientation budgétaire bi nga xamni ni bëri na euh, dina tax ñu xam ci lu gën a leer. mais annulé woon nañ ko. Euh, keroog euh, non waxuma déclaration de politique ah, générale. déclaration débat d'orientation budgétaire bi jiitu. déclaration de politique générale nga xam ni ministre de l'économie et des finances moy tok ak ay équipe mais bokkul la bu ñu annulé won kérok assemblée nationale. Wa bobu lay wax waaw bobu lay wax waaw bobu lay wax. bu leen mais damay bañ ñi mu déglu. Mhm. yaakaar ni bu Ousmane Sonko bi la. parce que boobu moo gën a bëri coow. waaw du bu Ousmane Sonko bi de parce que. wa wa. xam ni mhm. on dit la même chose. mais pour ñuy seetaan laay bañ ñu yaakaar ni bu Ousmane Sonko bi lay wax. bu ministre bi parce que bu Ousmane Sonko bi bu ministre moko wara ko mhm. ministre bi wara wax fi ba 2027. lan la wara war Ousmane Sonko wax fi ba 2029 lan la wara tek donc xam nga préambule la don nañu am une orientation mais assemblée de façon illégale dal di renvoyer. Euh, débat bi alors que ministre bi ñëwoon ak ay collaborateurs ba pare tek ko nak ci Ousmane Sonko daa bind ben lettre ben lettre boo xam ni adressé wu ko assemblée. Guy Marius Sagna la tontu. xam nga waaw la tontu loolu vraiment ñom dañuy yàpp assemblée bi daf ñu yàpp donc c'est c'est c'est urgent. Mm-hmm. ñu bolé ci réforme bi la dissolution de l'Assemblée donc 100 jours nous avons jël nañu cap qui est un cap bu dal xel parce que 53 milliards nous avons def pour wàññi dund bi te euh, ICS ñaata la 200 milliards. 4 fois plus. Euh, euh, société ori ñaata la ki a 150 milliards ñu ne ko 14. Que war a 120 milliards ñu ne ko 9 Les cimenteries, yi li fait ñu ngi nekk récupérer fi mu donc lolu je crois que ñu ngi jëm ci ay horizon yo xamni Sénégal dina dina dina tane té je crois que légui légui ñu gis différence amna solo espérons que dinañ ko gis bu baax baax alors euh, ñu demaat ànd ak régime ñu may ñu benn élément jëm ci batay discoursu discours ak euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi mu amal démb jëm ci lu ñewal conseil supérieur bu magistrature. défendre il m'est revenu à travers les débats et de ce que j'ai pu entendre dans la presse ci me que magistrat d'accord pour pour président de la république dès du conseil supérieur de la magistrature d'abord de ma je ne tiens ni à rester ni à en sortir je suis totalement neutre par rapport au conseil supérieur de la magistrature Si y ait les arguments du plus grand nombre en plus de poids par rapport à la pertinence je ne resterai plus dans le conseil supérieur de l'administrature et je n'en fais pas une obsession alors nous avons je n'en fais pas une obsession Clé Wow, waaw léegi xam nga dafa am euh, changement parce que UMS mm-hmm. euh, defoon na fi ay colloque ci conclusion yi dañ joy tout l'émission de l'exécutif dans l'administration de la justice Madame nguur li muy de dit, ci doxalinu yoon ba noppi ni président de la république waratul Nek, président du conseil supérieur de la magistrature Nous, ñii tamit. wax ko parti opposition bi Gisni, gis ni président de la république waratul Nek, président du conseil supérieur de la magistrature parce que gis nañ ni plan de carrière mon ko géré, j'ai eu ay consultation au téléphone xam nga ku le service ñu affecté la gis nga Télico bi mu rendre euh, euh Sabassi fay bi mu rendre euh, verdigam bi dañ ko yone ci saa ay inspecteur pour ñu chambar ko heureusement que fekk ñu fa dara mais loolu yëpp day wane ni président parfois dafay euh, dugal loxom ci justice ci justice ni muy doxee. léegi nag ñun ñu dem ci assises parce que man j'ai eu la chance bokkoon ci assises yi mais magistrat yi seen bopp ñoom ñoo ni déet président da talk un conseil parce que vous faites que nous sommes donc il faut que sommes am arbitrer ma sommes ma mhm. merci pour la relance ma là. ci Nous sommes Nous sommes am Nous bu bu sommes là. Macky Sall kon problème sommes là du président de la république en tant que institution mais Macky Sall la en tant que président de la république donc dafa mel une confiance dafa dellu ci magistrat yi ba ñu bëgg euh, président de la république nekk seen arbitre Quoi loolu man daf ma surprendre parce que man dama foogoon ni ñom ñoo ñu bëgg sax. mom aussi daf ko surprendre. mom dafa dafa mais magistrat mhm. je vous jure ñom ñoo tenir pour que président reste nous dañu ne président ne na fa Mais man position président ne fa jouer. mais magistrats nous nous xam ils nous ont parlé ils nous ont dit ñun que nañu suñu biir mais il faut que ñu am un président de la république comme clé de voûte comme arbitre parce que vous bu fekkee ni ay magistrats kese la euh, bu un problème du ñu am ku un arbitre. donc euh, ñoom ñoo sàkku loolu mm. et je crois que président de la république euh, dafa war a topp càkkutéefu magistrat yi parce que ñom ñoo yor seen cëgal guy nak quand même. am nañ ci yaakar parce que point bobu rek mo amagum néggandiku ci rapport général yi. euh, euh, euh moy point bi nga xam euh amul amul jubóo. djibo mhm. wuñ ci won mhm. donc ñu bàyyi ko à l'appréciation du président de la république. D'accord. mais man à la lumière de ça man mi nga xam dama bokkon ci ni na président du conseil supérieur de la magistrature bima ma magistrat yi je crois que magistrat yi la wara top